bismillah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ngi lay nuyu di la sa wàccuwaay bu baax a baax. waaye maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax. di la dégg bu baax a baax a baax. yàlla ñu ko bokk tur bi la ak fooy wootee. Samb lañ koy wax di woote Amérique. Samb Samb borom Amérique. maa ngi lay bëggee sama waa ji waxtaan wi am na solo lool. macha allah ñu daal di lay bàyyi nga joxe ci sa xalaat rek. alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla defal la jàmm defal la xéwal defal la tawféex maa ngi nuyu Sénégal yëpp nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen wax ni yal yàlla defal jàmm euh, bés bii ñu jublu muy le vingt quatre incha allah diggante Modou Lo ak yóbbu ñu ci jàmm mu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye eh, sama sama waa ji mhm. bu jaaxle ci lañ jëm lamb bu jaaxle lamb ju làmb ju doy waar sax. si naka doy si naka. waaw ndax euh, garab ci kaw lay fekkante ku baax. man dama ne gars yi dañ ne euh, Siteu euh, Siteu mënul daan mënul daan Modou waaye Modou mën na daan Siteu may leen jum ngeen nag Siteu mën naa daan Modou Lo waaye Modou mën naa daan Siteu. Mhm. may leen waaye dafa am yoon. dafa am yoon. waaw. Modou Lo képp ku ko bëgg a daan da ngay jaar te yoon ba mu jaar ndax Modou Lo maanaam ci gàttal. Mhm. dëkku bànneex la balaa nga fa egg yoon ba day tiis. <laughs> olof nga wax de. waaw ndax len na ci moom moo bari. Mhm. caay caay dama seetaan benn mag bu baax mu wax ci Modou Lo daal ni Modou Lo du mbëru Sénégal la maanaam du mbëru fii xam xam nga Modou Lo yan genre mbër la. yan mbër. mooy mbër yi nga xamante ni mooy genre mbëru booy bambara yi. booy bambara yaa ngi nga xamante ni tey jii nii waaw booy booy bambara ak ñoom ñi nga xamante ni ñooy Falaye Baldé yal na ko suñu borom yërëm. allahumma amiin. ndax li tax li tax loolu mooy li ne ci moom moo bari ci qualité. léegi sëñ bi lan mooy chance lan mooy chance la ok maa ngi ñëw boo ma rek maa ngi ñëw. ate ñëwal Modou Lo li ne ci moom moo bari ndax bërim dafa salte xeexam dafa salte xam sax dafa salte Modou Lo waaw dafa mhm. xajam mhm. beneen bi mooy mën na leen Siteu su bëggee daan Modou Lo mhm. da koy jàng da koy jàng si naka daa ma jox la preuve ñëwal Balla Gaye de keroog bu mu jëlee Yékini Yékini ma quinze ans xaw waaye Balla Gaye jël jëlul xelam mii def ko ci korong bi déedéet dafa dem jàngi kan mooy Yékini Mm-hmm. lan la war a jàng ci moom mooy yëkk Yékini ñi muy bëree dafay ñëw pour daan la waaye du ñëw pour bëri ak yow xuma mm-hmm. yaa ngi may déggam déet mm-hmm. maanaam du ñëw ci wéccoo ci yow ci bëri dangay ñëw bëri mu daan la ci biir bëri dem yoonam luy différence ñaar ñooñu ñëw ñëw ñëw bëri ak ñëw daan luy différence bi waaw kay maanaam ñëw bëri ak ñëw daan ñëw bëri mi ngi ma ne nga ñëw weccoo ci bëri Balla Gaye ba muy bëri ak Modou Lo mu woo ba daa daf ne ko kii boo ko boo weccoo ak moom a bëri daf lay daan dafa mm-hmm. def li ngay def am vivacité bi nga am yàq ko ko daan dem sa yoon. Mm-hmm. bi mooy. Mm. weccoo ci bëri mooy defal ma def bàyyil ma bàyyi ni mu doon bëree ak Modou ñëw bëgg Modou Lo corrigé loo ci biir bëre Modou Lo wan ne ko fii loo fi teg mën naa koo tekki. waaw loolu laal ma teggi ko dëgg de. loolu laal ma laali ko. Mhm. donc Balla Gaye li mu dañ jàngi mooy nan laay fexe ba bëre loo Yékini waaye Yékini du bëre. Mhm. moo tax Balla moo tax bétail bi bi na ko image nii dama gis nga yóbbu Yékini di ko indiwaat. Mhm. fii loo ci jublu mu ne parce que dama ko ndengeen ba pare dama koy bëri loo tëdd bëri te loolu travail la kon daf lay wan ne Balla Gaye focusul ci courant bi. Mm-hmm. dafa focus ci Yékini. si bëre bi bëre bi la jàngi. ci bëre bi ci xeex bi ci lépp parce que daf ko travail mooy dafa ñëw fekk Yékini bëre bu Yékini bëre te loolu mooy avantage mooy ni bëri ci kawam te pourtant Yékini moo moo mooy courant bi léegi Yékini li mu waroon a def foofu mooy téye boppam. Mm-hmm. mais mais li mu gis mooy xale bi ñëw na pour bari ci sama kaw kon dama koy jàngal bari daan ko. dem takk ko rof ko caxabal avant bi tànk bi di tegu Balla dëpp na ko. kon dafa dem jàngi kan mooy yëg nii. Mhm. daan ko ci biir bay. Mhm. léegi Siteu li mu war def mooy jàngi kan mooy Modou ndax Modou Lo lan lay bañ mooy Modou am na xeex. Modou am na bari Modou Lo waaye dafa bañ ko ko fat sànq maa lay dégg sa bureau. non Modou Lo ñu nax la Modou Lo dafa caacaay Modou Lo est-ce neex na jàng. est-ce que neex na. est jàng ba xam ni muy bëree. waaw mais li tax ku naqaree jàng la nag parce que xam nga lu tax. Hmm. mi ngi mel ne nga ne école. ci ngay tàmbalee C C2 hmm. jëm kaw balaa nga fay egg da sonn waaye nag coono lay laaj. <laughs> dëgg dëgg la de. ndax Bombardier rek avant bi muy daj Modou Lo daj na loo xamante ni keroog boo ba Bombardier daanee Modou ba pare Modou Lo lañ waroon a la nga génnee ko géew bi mais Bombardier lañ la nga génnee ko géew bi. parce que mënul taxaw xamul fu muy taxaw. beneen bi mooy. Uh-huh. combat bi dama koo topp gis nga làmb danga koy topp parce que tubaab daanee un ne deux ne trois tubaab ñëwul ren ne un ne sept ne mm-hmm. ne A da ne benn seey. moo kon làmb da nga koy topp combat bi première face to face bi nga xamante ni Modou Lo moom la def ak Siteu Modou Lo li mu def ci xel mi mooy dafa bëgg Siteu foo ko si courant bi mhm. mu nax ko daan ko moo tax mu indaale courant bi ñëw teg ko mhm. boo xool lan la Siteu wax dane lii laa soxla waaye waxu daan Modou Lo laa soxla de couronne bi la soxla léegi Siteu lan la war a def ci liggéey naka la war a bëri dimanche comme que fii jàng Modou Lo moom est-ce que xajate ni moo si des léegi naka la Siteu war a bëree combat boobu. mooy ñëw fekk fekkal jaar lu ma am jël su ma daanee baax na su ma ko daanee baax na <laughs> parce que koo xamante ne xamoo lu muy indi. Ah. ñëwul def li ngay def li nga li nga liggéey ñëwal appliqué ko waaye man Siteu suma ko yoroon dama koy préparé loo xaar préparé la koo dem parce que Modou Lo lépp la ma ne. préparé ko préparé waaw mais léegi nag moo mu yore bi foogoo loolu mun na ko may avantage côté boobu. Siteu relance bi mu yore da ko da ko arrangé baax parce que xam nga lu tax combat bi dafa may jox benn combat xam naa sax di ngeen ne maam que dinaa leen def sa combat de Albouri. waaw. waaw Albouri tamit am na relance. parce que xam nga lu tax ma laaj loolu. sànni ko ci sànni ko ca àll ba. waaw xam nga lu tax ma lay laaj loolu. xam nga lu tax ma lay laaj loolu. waaw Modou Lo da Modou Lo moom ñëpp xam nañ ko dafa bëgg a combat rapproché. waaw est-ce que léegi yow xalaatu noo est-ce que Siteu mënul utiliser rallonge bi bañ combat rapproché boobu ba pare utiliser rallonge bi. nga ni dégg nga Siteu xanaa xamoon ne Siteu entraîné na la muy entraîné def na li mu war a def mais est-ce que xam na ni mu war a bëri ak Modou Lo. Ah, waaw loolu tamit loolu am solo la aussi. ne Siteu yor na lu mën a daan Modou Lo ci 30 secondes. mais est-ce dina xam mu ko koy daanee. moom moo tax ma ne la est na fa. <laughs> waata lu mën a daan ci 30 secondes. mais may ñëwee mooy Alboury arbitre bi dafa sigle mu jël taat yu sànni ca ay loxoom fee kële. waaw euh, uh-huh. la moo ko arrangé foofu muy combat ci. Mm-hmm. waaye li ko li mooy. ba ba ba mu yéex a daan Albouri muy coté bi mu doon doxee dafa arrangé Albouri te côté boobu Siteu bu fa doxee Modou dafay am avantage pour xeex. Mhm. Siteu dafa jàpp ngeen ma contre Mambal la liggéeyul jàpp ngeen ma contre Guy gi liggéeyul jàpp ngeen ma contre Sathiès liggéeyul jàpp jàpp ngeen ma contre. Mhm. Boy Sèye liggéeyul. te Modou képp kuy jàpp ci ngembam te amoo xel moo ko daanee wala amoo xel loolu boo def ci moom dafay am avantage pour xeex. Mhm. day xam ci lay ubbeeku parce que moom da ngay bëri muy xeex yow ngay xeex moom muy bëri. dëgg te benn beneen bi mooy taxawaay bokkul Modou Lo taxawaay boxeur lay taxawee du taxaw taxawaayu mbër. taxawaayu boxeur maanaam day jàpp tànk yi expliquer bi lan la ñaar da ngay suul tànk yi Modou Lo du suul ay tànkam da koy jàpp moo tax mu mën a déplacé wu aller retour. Ah, ok comme ça Modou Lo Modou Lo daal du daal di suul tànk si suuf daal. non non da koy capp maa la wax lii da koy capp comme dinosaure looloo looloo koy may mu mën a déplacé wu aller retour di mën a yokk bopp bi moo tax Balla Gaye bu koy duma Balla Gaye fu ne lay sànni loxo yi parce que xamu xamu fu la bopp mbooloo bi di jaar. dëgg la. te loxo Balla Gaye fu mu jaar dafay fekk kowu Modou Lo wala dafay fekk bopp Modou Lo. boo xool Balla Gaye buy dóor Modou Lo maanaam du du du ko dóor direct xeexi mbedd la koy indil bu sax na. di ay laaw. i i i mu wax yëpp si combat nii ñëpp xam ne ne Cité ñoom Max Bergan ak yi demee noonu noo ko yooy yow jàppoon na ni spécialiste yooyu ñu wax yëpp jàppoon na ni ñoom bàyyi nañ si xel. mun na am parce que ñoom ay magu làmb lañ. Mhm. ay magu làmb lañ xam nañu. waaye man di ma jaaxal daal ah man de yaa aw saame mii <laughs> moo ma jaaxal rek waaye Cité mën na koo daan de dégguma la ngeen ne kan ngeen ngeen ne la jaaxal yaaw saama yaaw saam ah non sambala sa bee la de barki alxuraanu karim gars yi ñu ngi koy wax nii mais dëgg la de hmm. te dafa wax wax bu am solo te gars yi bàyyiwuñ ci xel te boobu ba léegi mi ngi wane preuve nag mooy lan wax jooju ban ban wax la jërëjëf bonne question déglu leen bu baax Modou Lo ni muy waxee. ate ñëwal lii nga xamante ne yàlla suñu boroom moom la teg ci sama loxo Mm-hmm. dama fas yéenee bàyyiwaale ko làmb. Balla Gaye dafa taxaw daan ne benn xale dootu ma yeb. léegi dafa taxaw daan ne benn xale du ma yeb du ma daan. Mm-hmm. taxaw daan ne xale bu moo fi damay daan Modou loo ñëw daal ne. Mm-hmm. lii yàlla suñu borom teg ci sama loxo. fas naa yéene bàyyi bàyyi woo waale ko ak làmb. léegi yow daa koy laaj na ko yow loolu foo ko teg mu ne ko lii. muy sabablu liggéey jaamu yàlla est-ce que yaa ngi may dégg. Mm-hmm. te boobu ba léegi mi ngi ci ah Mawlo gëm na yàlla. Mm-hmm. mi ngi julli yow daal yow daal bu ko gis moom mooy cité chance am bariwul si si si combat bi. wax waxam bariwul. Mm-hmm. barki alxuraan cité bu bëggee daan Mawlo ma ne la ci trente secondes la koy daan bu ko mënul daan ci trente secondes du daan Mawlo parce que pure droit ba ma koy tegal rek danger la ci moom. ok yow da nga gis ne combat bi warul diire Siteu dafa war a gaaw a bâcler combat bi. warul diire première cinq minutes bi ci lay daan Modou me loolu mais loolu dina. yomb pourtant yéen Bombardier moo ëpp doole Modou Lo. waaw mu ne loolu. loolu trop premier cinq minutes Siteu daan ci Modou comme si que Modou moom tamit liggéeyul ci combat bi en fait loolu loolu loolu dina. yomb trop liggéey na ci combat bi mais waaw mais parce que xamaloo tax loo gis nga fii loo gis travail la. Mm-hmm. da koy travailler rek damay damay travailler ni li su ma ñëwee lii laay teg par la force dama koy imposer. mais bu defee noonu. parce que xam nga ni arbitre sifflé Modou Lo Boy Niang Boy Niang moo nekk position boo xamante ni arrangé wul Modou waaye Modou Lo xama xama fan la yàqee làmb ci. fan mooy wu. dama laaj ci combat Modou Lo Boy Niang ne ma ma dégg ñoom ñaar ñuy wax ci ma ñaar ñaar dañoo xaw a nduróo bëree ah kii lii la nduróo bëree moo may leen gaa ma xamal leen dara nag ñoom ñaar nduróo nañ bëree. mais am na lu ñu wutale. doo ma loolu la ñu wutale. loolu mooy lan la ñu wutale ñoom ñaar. booy ñaan ko ko dàq dalay daan te bu demee du delsi te Modou loo bu demee day delsi. waaw dàq dàq Modou Lo moom loolu moom wax wax naa ko fii bee paase Modou Lo soo ko soo ko da wóorul parce que gis nga Modou Lo dina def dina def recul stratégique mais si biir recul boobu. dina mm-hmm. freiner dóor la arrêt. loolu xanaa ah, xamoon ne Modou man man ana su ma ko tegee ci analise rek. Hmm. man combat bi dama gis ni kii euh, loxo bi nga xamante ni mooy mooy fort Siteu. pied hmm. gauche bi. Modou du Modou du ko teel a fat. waaw Modou du ko teel a fat parce que xam nga du ko teel a fat. Ah. Siteu pied droit lay jiital balaa dara. pied droit lay jiital. xaw ma nag nga soob ca làmb mais bu fekkee pied droit bi mu daan jiital wala bi mu daan tegal nit ñi moom la tegal Modou Lo. Hmm. loxo bi muy cokkaasee Modou Lo daf koy téye. Mhm. waaye yàgg yàgg daf koy bàyyi. te bés bu ko bàyyee xeex dina déclenché te bi bés bu déclenché damay ragal. si te dóor bal loxo bi ma ñëw. loxo bi ci ginnaaw daf koy indi te ba bés ko indee Modou dafay dugg ci surface am. Mhm. te su boobaa Modou dina sëkk. te Modou du bu sëggee ba siggi da leer na ko mu wala fay fekk. donc ah non may wax ak yow. expliqué foo euh, site foogoo ne par exemple site warul jéem a jéem a euh, euh, raam naag yoot naag bañ jàppante. mais yéen gis nga non Ama Baldé Ama Baldé Ama Baldé moo gën a non comprendre naa par exemple su doon dem nen naan ba jàppante rek. ñu ñëw rek jàppante surtout su ma ko doon doxloo ca côté bële koy doxloo ca côté ndeyjoor ba fa koy doxloo. pour mu mën a cadré mais bu fekkee fii lay dox ci ci pied bi Modou Lo dafay am avantage pour xeex. Mhm. maanaam dafay nekk à mhm. mais bu fekkoon ne damay fàttali damay fàttali Modou Lo Mhm. xanaa ko ma ne am seen doxee na fa sax mais dafa yeex parce que dafa dox un pas deux pas loo fatt ko mu dem door laaw ba mu si ba mu sëggee ba siggi da koo kor. Mhm. il est très dangereux boo déggee ñu la Modou Lo il est très ma xamal la ko tey jii mi ngi mel ne tey jii ma ñëw ci ma ma ñëw sa kër ñu ne ma mbedd mi moo jëm kër diw waaye mbedd mi dafa dangereux lu ne lu ne mën na la fay arrivé jaan mën na la fay arrivé. Mhm. gaynde mën na agresseur mën na la fi arrivé waaye gëm yàlla ak am fit am fulla moo tax nga jaar fa jàll. Mhm. la mhm. Mhm. lii de xam-xam la. xam-xam la kii expert la. lii de xam-xam na am lu lu bari si beneen bi mooy ban. ay Modou Lo ay waay. Modou Lo liggéey na de mbaa xam ngeen loolu. ah Modou Lo kay eh, boo ko gisee si open press bi war a xam ne liggéey na. mais Siteu tamit liggéey na. ñoom ñaar ñëpp liggéey kay li gën a dangereux ci Siteu ci la Modou taxaw muy à l'aise. dégguma dégguma waxaata dama ne la li gën a toog muy à l'aise. waaw Modou Lo muy dem ba wax naa ne wax xeexeexeexe. Mhm, parce que Modou Lo dafa firi Modou amul benn pression. Ah, non yow yow mënul lamb ji da dugal gëm yàlla gu ma sëkk mooy lépp lu ñëw dama ci def sama fulla ak fayda waaye du ci dem ak stress. Mhm. non ma ñemale benn affaire. mooy lan. Ah, est-ce que xam nga ne Siteu li tax mu énervé ci face to face bii ñu jàll. mooy lan. day bàyyi bonne question. <laughs> Siteu bu sañoon lim liggéey lépp mooy ndarñeel dix jours combat bi. dafay jàkkaarloog Modou Lo face to face triple X bi neex ko. Mm-hmm. Mm-hmm. seetlu loolu loolu. yaa ngi may la wala déggoo ma. ñu ngi dégg bu la. wala kii war a côté côté mystique de. préparation laay teg ak yow waxuma la côté mystique man côté mystique samay ñëw si. Mm-hmm. préparation de combat lan moo la leer ni damay laaj rek nag lan moo la leer ni Modou Lo Siteu li préparé woon. jàkkaarloog Modou Lo moo koy arrangé ndax bu jàkkaarloo nag Modou Lo bu ko leeree ni du génne ci combat bi yàlla xam nag de xaw ma mm-hmm. mais la moo la leen su boobaa mu Siteu mën na dugal médical. <laughs> non mais mais man. Ah, démb dégg naa Max dégg naa Max Mbergane par exemple nee na nee na Siteu euh, combat bi demoon na ba benn instant sax Siteu di ko laaj. donc naan est-ce que Siteu pare na mu ne mbër su demee. ba nit di commencé di laam-laame est-ce que naru di parce que dafa ne euh, parce que promoteur moo ko wax promoteur bi si boppam mhm. wax ne ne autorité yi dañ leen woon ne leen ne xool est-ce que mënu ni décaler combat que daf ko a jage mhm. comprendre nga mais mujj ni mujj CNG mujj waxtaan ak ñoom ba ñu jàpp ko nee na Siteu loolu xaawoon na ko jaaxal nee na nag su demee ba nga xam soo bëggee pousse lamb te moom d'accord si dafa bëgg a bëri si date boobu moo lay wane ne pare loolu la Max Mbergane wax. kon Cité pare na. que Cité xam nga la xam nga dama lay wax benn affaire. mooy lan. Uh-huh. la ne xolu Cité la ne ci xolu Modou Lo la ne ci xolu Max Mbergane kenn xamu ko. dëgg la. Cité lu muy dagaase ak la mais yéen si yàgg na ak Modou xam na ko mbokkam la wala da ngeen lool. dëgg la waaw waaw loolu ah, wax ak yow. ate ñëwal. billahi euh, man mi ma gis. man man dama la yaaw sama mii ma gis barki démb. Ah. mu daw saa mi dugg ci stade bi. Ah. <laughs> ngi koy woowee yal min xaw ma yal xaw ma lan <laughs> dëkk bi. Ah. dëkk bi ak borom. man bu fekkoon maay man man maay si man damay dugal médical man Moustapha <laughs> sobateewu ma nag. léegi lu tax lu tax yow nga bëgg Siteu dugal li nga xam ne moo di yow jàppal nekkoo ci combat bi. mais la moo tax yow nga bëgg Siteu dugal médical la. waaw mais parce que Modou dafa nekk à l'aise te loolu arrangé wu Siteu. ah kon yow daal yow yow. li Modou Lo chaque jour chaque jour dem leen seetaan face to face Balla Gaye 2 Modou Lo chaque dafay mettre en doute Modou mooy Modou Lo rek mooy wax moo koy cokkaas Balla Gaye lan la koy wax waa baax na say supporters ñoom a yëpp waa yow yëboo ma. xam lan laa doon xaar ci Siteu. Uh-huh. mu jàkkaarloog Modou Lo jàkkaran. Uh-huh. ne ko Siteu mu ne ko Modou Lo maa la mën maa la doole maa la dàq ko bëri boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. yem foofu. audace moo am audace mais jàppoon ne tamit Siteu daf ko dafa respecté adversaire am tamit bugul bugul wax lu nga xamante ni tamit loolu. Modou Lo boo boo bëggee daan doo ko respecté danga koy def ak. <laughs> ngeen baal ma ci kàddu gi lamb noonu la. waaw comme comme comme ni ko Balla Gaye def rek Balla Gaye da ko agressé. mais mais yéen mosoo leen gis ba Balla Gaye da ngeen a mos a gis Balla Gaye wéccoog Modou Lo ci bëri. dama ma ne la doo ko gis waaw bañ ko topp si nga tax doo ko gis xam nga tax doo ko gis. Mm. caas bu la dee lakk ko rek moo lakk ko rek moo fay sës. dëgg la. te Balla Gaye noonu la mel. dem leen seetaan préparation Balla Gaye Modou buy buy buy waajal moto. Mhm. Balla Gaye maa seetaan entraînement ba mu jeex barki alxuraanu kerem keroog sama xarit daf maa wokk ne ma loo xam ñu combat bi ma ne man combat bi noppi naa ci bu yàgg. Mhm. man góob ma ni sama waa dina ci génn. parce que xamul tax du ci génn. Mhm. damaa xam fi ci Modou man Modou waxuma la mbëreem waxuma xeexam mais billahi wallahi watalahi. jom yi Modou Lo daan na Siteu. dëgg la. jàppoon ne jàppoon ne ne Siteu mun na ko xañ. beneen bi mooy. Ah. Hmm? non Siteu xoolal si dëgg la ma a wax Siteu mun na daan Modou bu jékku mais loo gis dafa am yoon. waaw ah, bu jaaree ca mu a jaar dana jaar bi mooy fi may tëjee. Ah. dama war a liggéey. dëgg la. <laughs> Siteu dafa am avantage boo xamante ni waxuma la ci combat bi de ci làmb ji. lu mbër mësul am. loo xamante ni Modou Lo amu ko. wala loolu mooy moo ko am ci làmb ji te moo Siteu ko tane muy Bombardier. dëgg la ndax Bombardier daan daan Modou Lô daan Balla Gaye tegle leen. dëgg la. te lu jafe ngi noonu. Mhm. te Modou Lô te fi mu amee Modou mooy def day bëri Modou Lô couronne roi des mhm. te ñu ngi koy dee Balla Gaye 2 te Balla Gaye 2 lan la yor empereur léegi imaginer leen mu daan Balla gay daan Modou Lô doon empereur doon roi des arènes. waaw jël ñaar te xale bu ndaw. Mhm. ay non maa maay wax ak yow. ci te fi mu toll nii dafa war a liggéey ba dee. Mhm. lu mu mën a def pour daan mur na ko daan. dëgg la. bu ko deful gàcc la ci moom. Mhm. lu leer laa la wax. fàttali li tur bi kontaan naa yàlla defal leen jàmb. fàttali ñu tur bi. ah fàttali ñu tur bi. Moustapha lañ koy wax mais ñu ngi ko ñoo ngi ko gën a xam ci sàmb Moustapha borom Amérique. fan fan nga nekk si Amérique. waaw dégg naa bu baax dégg naa bu baax yow nag yow. nee fan nga nekk si Amérique. man dëkk bu naan foo jën ay loon benn il la nag xam nga damaa ragal ah, seddaay moo tax damaa ñëw ca dëkk dëkk tàngaay yaa ma a xam <laughs> ak géwél laa. yi New York ak yooyu ah wax na fi xam-xam de. Mhm. fii ah, ah, mais xam nga làmb noonu la làmb moom wax dëgg yàlla. Mhm. ah maanaam da da ngay góorgóorlu rek. waaw mais ngeen baal ma nag ma wax ci benn combat mooy ci combat mooy Anaconda combat bu doy waar gi noonu nag. sama uh-huh. bu doy waar. yow xanaa da doon bëre xanaa da nga bëre. <laughs> non non sax bëre ma wala mais xam nga rek topp làmb bëgg làmb yaa ma gën a xam lool la rek. dëgg la. <laughs> léegi dimanche dimanche bi daal dinañ dimanche bi dinañ am euh, plateau bu mel nii balaa combat bi fexeel daal ba dugg si. Mm-hmm. non non yéen ñaar après da ngeen may jox seen numéro rek incha allah rabbi man dinaa dugg bu neexee suñu borom. incha allah bu neexee ak ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak waa ak ñëwal ñëwal si combat boobu ñëwal si combat boobu loo si gis lan nga si jàngatee. anaconda bu mu yàqamte bëri bi bés bu yàqamtee bëri bi. Hmm. non dina gis lu ko bett parce que dafa yàqamti bëri bi ko contre moom ak Boy Seye 2. Hmm. Boy Seye 2 daan ko ci biir bëri. Hmm. am na xale bu lëj nag. waaw. te marle dafa salte. Mhm. marle dafa salte ni muy bëree. mooy daf lay mel ne ku la ragal. te bés boo ñëwee chargé ci kawam mun na la daan te doo ko yëg. Mhm. lenn rek marle lenn rek moo koy xañ dara ci bi. mooy lan. muy physique. physique. waaw. kon dafa war a entraîner. mooy li am mooy li am koofur. bu mhm. parce que booy xool booy xool mbay guy buddi na ko mu mu mu fecc ci kaw fecc fecc daal di wàcc. loolu physique moo koy def. ak yaram nangu. Mhm. yaram dafay bëri loxo rek du bëri yaram sax dafay bëri. Mhm. te dafa yor bëri yaram loo ko sono sono sono sono bu takkee ci sa yaram yow pare nga. dëgg la loo wax nag si bébé Elton ak ak Cheikh Niang. laa ilaaha illallah. <laughs> lenn na xamal naa ko moom. mooy lan. boobu xanaa xamal ni li ma ci gën a séntu mooy dóorum daal. Bébé Elton contre Mar kii nii Cheikh Niang. barki alxuraan karim yi dafa gaaw. comme bu sa machine. te Bébé Elton dafa am fit. non dafa am fit li muy wax dëgg la ci moom de pépeel yooyu muy wax barki alxuraan dëgg la ci moom. Mhm. te bés bu ñëwee bu ko appliqué làmb ji du yàgg ndax Cheikh Niang loxo bi dafa gaaw comme comme pour sa machine. xam nga journée boobu tamit ay coup beneen bi nag alliance Balde kii dun bu faas alliance Balde dun bu faas moo wax si combat bu. Eh. ah làmb la de waaye alliance Balde li ma koy digal mooy na dem dund ay caaxaan. Mm-hmm. xale la te dafa liggéey. <laughs> alliance li ma koy digal ci combat boobu mooy alliance booy xool combat yu bari li koy xañ mooy xeex bu bari. dafa ñëw combat xanaa xam ne lamb am na fu muy toll stratégie da cee baax. loolu foofu la rawee gars yi. da ngay teg xeex bi andi bëre bi. da ngay xel. Mm-hmm. bu jaaree fii nga jaar fee bu yootoo fii nga yaakaar mu yaakaar ne fee nga yootu nga yootu fële. Mhm. code la loolay làmb. ay code la ay code. code la waaw kay làmb am na fu muy toll da ngay teg say code. bu tiit tiit bu bu bu xoolal juumee rek yow defal li ngay def te dund bu faas dafa mën a dafa mën a bëre. xale de dafa mën a bëre de. lu leer laa leen wax bi kay na combat yu bëri ay vieux sa jaxaaw am na aussi. am na waaw sa jaxaaw yooyu yëpp ay combat la mais lool incha allahu rabi loolu dinañ ci a yaatal xaw ma dama war a dina war a liggéey mais loolu yéen incha allah gën a euh, dinaa abonné sax si seen chaîne bi comme ça mooy dugg ci yéen di waxtaan bu neexal si dugub mais kontaan naa trop sama gars yi bëgg naa lool. incha allah ak da ngay daal di nga daal di koy rek bu ko defee ah, ñu koy daal di soo xëyee ñëwal dugg si beneen teg plateau avant combat incha allah rabi jaajëf acca merci beaucoup acca merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom nga xam ne mi ngi wootee fa li nga xam ne moo di euh, Amérique mbokk baaba la nag xaw ma États-Unis <laughs>